dama la nuyoo loolu rek mais tey ñëw ci benn attaqué boo xam ne yaakaar naa mooy lëmbee li nga xam ne mooy Sénégal ak àdduna muy combat Balla ak ki nga xam ne mooy Boy Niang ah ñu xame am na loo ci wax te yow yaakaar naa doo ñu xame la leen Eumeu ñëw na fii ci combat yaakaar naa am nu te dëkk Pikine te ñu gis bàkki nga dugg benn vidéo nga ne Balla Gaye day ki nga xam ne mooy Boy Niang yaay booy te ah Eumeu Sène Pikine la dëkk te bala nga yóbbu Pikine lan moo wax nga wax nga tax nga wax loolu. non waxuma ne mooy daan. Ah, parce que dafa am lu may faral di wax. Mm, mm. maay yaayu grand yi. maay yaayu jeune fii yi. mais maay raqu paa yi. Ah, te maay raqu mère loolu tax na réew mi fi laa bokk fi laa mm. amee bulletin de naissance. laa juddoo mais Géejawaay Parcelles laa dëkk. fi laa amee njaboot mm-hmm. te yàlla dafa dogal fi ma toll ci réew mi waratumaa wax lu nu may xeebee ah, waratumaa wax lu nu may cofee mm-hmm. kilifa diina gi toog di seetaan soxna de Saliou mm-hmm. daf ma bëgg ba sama vidéo kilifa gi daf koy xaar pour recevoir ko pour seetaan ko kon war naa mesurer samay parole ci yenn yi ba duma def lu nu ma xeebee bokk ci réew nag leen lay xeebee bokk ci naa na réew mi war a toll ñaari doomi réew di bëree Balla Gaye doomi Sénégal la Balla Gaye doomi Géejawaay la waaye booy ñaa doomu doomu Pikine la Pikine ak Géejawaay cent franc moo koy paas boo bëttee mbedd yi tout près da ngay jege bu nu amee naqar dañu koy bokk daje fa bu nu amee bànneex dañu fay bokk daje mhm. kon jombale naa sama bopp mhm. xool Balla Gaye ba mu neex ma ma ni Balla Gaye mooy daan booy ñaa te booy Niang ami mbokk ami xarit ami soppe waruma xool booy Niang ba mu neex ma ma ni booy Niang mooy daan Balla Gaye su ma ko xamee dama koy xam lu xew ci réew mi xam naa ko combat bu ma seet dama koy xam bu jour bëre ba jotee man ba xam ni ñëpp toog nanu xalaat yëpp dem nanu nit ñi concentré ko wa des wure wa dem na këng waxi mag dem na ndenkaane mbëri summeeku nanu kenn talatul di xool lu internet wax lu dul da ngay xool li la télé bi di wax man damay estati mbër mi war a daan mbër mi war a daan dama koy stati su ma statee samay doom mhm. samay xarit samay soppe daa di jël nag bu doon ne kuy war a cotiser nga wala kuy war a teg da ngay bàyyi loolu xam ne lii lii moo fi ne loolu njunju day doy boromi xel ndax mag mu baax noonu lay doxee cim réew waaye jombale naa fi ma toll ci réew mi mhm. ni nu ma bàyyee xel mhm. ni nu ma sóoraale ni nu may seetaane ak ni nu ma soppee ay soppey Balla Gaye sopp ma Balla Gaye di sama dëkkandoo ay soppey booy ñaa bëgg ma ma juddoo pikin mm-hmm. man du sama cër may taxaw ci internet bi dara ma ko ci àdduna bu loolee day tax ñaari mbër yi di ñëw ci man kenn du ñëw naan taxaw naan diw mooy daan di tas yaakaaru ñu naroon a jënd billet di tas yaakaaru seeni mbokk mm-hmm. seeni xarit te ñëpp miin nanu lu ma wax ci réew mi mu am kon su ma waxee mbër mi mooy daan mbër mi laay njëkk a yàqal mën naa koo tee añ mën naa koo tee reer mën naa dem ba ca combat ba waroon a génne saraxu fukk génne juróom ne soxnaay da wax na ko kon lu may wax damay wax loo xam ne bu nu ko non non non non tollootuma foofu damaa war a defar waaye waratumaa yàq réew mi damaa war a boole mhm. maa war a taqale mhm. maa war a defar ba mu baax waaye warumaa def loo xam ne ku ko dégg na ak cam wala xaar ma ci doon noonu mhm. damaa ragal defet damaa ragal gàcce taalibi sëriñ Saliou la waaye ci jàmm lay njëkk ci jàmm lay mujj li li sama wareef rek xoolaguma loolu nag danaa ci wax ci yeneen i vidéo mais tey fi réew mi toll lii sama wareef ci réew mi mooy bu bëre yi amee ni may defee ci état bi laay defee xam nga état yi dama naan maire yu bari dañ leen raxas bu doon mbër yu bari la dama naan leen mbër yi war a dëkkee fii bëri Modou Lo Ama Baldé dama ne du am deux mille vingt deux mille vingt ñu dem deux mille vingt et ma leen kenn du ko ci tëgg ñu dem deux mil vingt deux ma ni bëri bii tas koo gën ndax du bëri mm-hmm. te yaakaar naa ci tas la mujj bu lee loolu la danaa ca wax mm-hmm. waaye ki yey daan ah non loolu.